boo ma toogee jàkkaarloog waa Sénégal yëpp ñu may xoon man ak yaayu aji ñoo bokk ndey ak baay moo namp jox ma man ma topp ci kawam ñun nag ba balaa ñuy waxtu dañuy masaw waa Sénégal di jéegalu xanaa ñi defoon ne aju amuñu ay mbokk tey nag bu ñu gisee dinañ xam ne aji am na ay mbokk aji nag xanaa ku ko xamul may leen ma xanaa ku ko xamul rek ndax looy wax da ngay wax sa digganteeg yàlla ñun nag suñu digganteeg yàlla rek la ñuy fese tey pour wax xamuñu fekkeewuñu yëguñu tamit dañuy bàyyi yàlla mi nga xam ne moo xam moo gis yal na yàlla ate yëpp mu leer aji séeréer la kim ko seekal joolaa la ñoo bokku ñoo bokku maam xanaa papa ye ñu seedale ku nekk nag dañ lay ñaanal yàlla yàlla mi maye ndam ku am dëgg rek yal na ko yàlla teg sa kaw. tàmbali mu mel ñoo ngi di soog waa xam nga lu tax ñuy soog a gis. ñun dañuy wuyoo ndigal di jëfee ndigal suñu ndigaluy waajur la ñuy jëfee moo ñu xanaa moom tey moo ñu jox pour ñu ñëw teew kon dañuy teew ñu doon dugg nag ci réseaux sociaux yi di wax ci aji xamuñu ci aji dara man mii maa aj aji aji 83 la l'an 2003 la judd sa safra l'an 2003 la judd man maa ko boot kon kooku xale bu ndaw la l'an 2003 l'an 2003 moom la judd xale bu ndaw la aji. est-ce que yëgoon ngeen ni Adji liggéey massage. ñun buñ ko yëgoon ku ñu gis ñun xam nga lu ñu xam daal suñu doole man mii di wax ak yéen borom njaboot laa xale bu ndaw laa mais damaa njaboot sama jëkkër dafa gaañu bàyyi maak ay doom ma teye leen di liggéey ñun daal suñu doole la ñu xam liggéey yi ñëw toog ñun loolu la ñu xam fu ñu dëkk sax xam nañ ko loolu la ñu xam. dañuy sant yàlla nag ba nga xam ne ñun du ñu saaga doomi jàmbur du ñu wax lu ñaaw du ñu def lu ñaaw ku ñu saaga nag bàyyi nañ la ak yàlla gis nga nit ku bon mooy xam ma moromu bu bon nit ku bon mooy xam moromu bonam man du ma tontu saaga du ma saaga kenn ndax man dañ maa yar fi ñu ma war a yaree mais nag ñoo ngi sant yàlla de ci kaw ci kanam war na alxuraanu karim dañuy am ndam ñun ay taalibe sëñ Fallu lañ eh, eh, eh, est-ce que ñàkk moo ngi liggéey massage du ko liggéey ndax fekkul benn famille di liggéey massage est-ce que tekkiwul ni tamit da ngeen ko abandonné woon ko bàyyi kenn mosu ko abandonné abandonné barke alxuraan kenn mësu ko abandonné ku ne dañ ko day tuul kenn mësu ko